laas ci xëtam bu njëkk dafa daal di ñëw rek daal di xëyee li nga xam ne moo xew uh, ni ki démb fii nga xam ne moom moo di ndakaaru mu di rek askan wi ñu feggu ci li nga xam ne moom moo di parti bu Pastef daal di wane seen bopp ci mbeddu ndakaar yi taal ay oto taal ay bërëb mu mel ni yéenekaay bii di laas uh, daal di ñëw ni kat les sonkistes mettent le feu partout mu mel ni ni ki démb ñu feggu ci Pastef nekk ndaw ñi maanaam daal nañu bërëb yu bëree bëri wane seen bopp ni kat dañu daal di mer ba futt ci convocation boobu nga xamante ni jox nañ ko seen leader boobu di Ousmane Sonko ñu koy toppee rek li nga xam ne moom moo di yàkkataan jëm ci soxna ki nga xamante ni moom moo di soxna Adji Sarr loolu la yéenekaay bi daal di wax waaye yamu ca ma ngay indi ci faram-fàccee ginnaaw rekk li nga xam ne xew na ni ki démb fii ci Ndakaaru yéenekaay bi indi sax nataalu li nga xam ne moom moo di tàkk-tàkk boobu le oto waaye di fësal ni itam teg nañu loxo lu toll ci ñeent fukki doomu aadama daal di leen di garde à vue fa nga xamante ni moom moo di ca sûreté urbaine de Dakar waaye gis ni lu toll ci sept voitures ak benn kat bu nga xam ne moo euh, gaare woon foofu ci buntu Prodac yooyu bokk na ci oto yu nga xamante ni jot nañu ko daal di taal jëppét waaye ba tey ci biir yéenekaay bi ma ngay fësal ni kat niki démb ku ne gis na ci anam ba nga xamante ni noonee la ñu taale itam la nga xam ne moom moo di Auchan bu Sacré Cœur waaye itam taal la nga xamante ni moom moo di këru ka nga xamante ni moom mooy euh, directeur de cabinet wu son excellence monsieur Macky Sall mu di Mahmoud Saleh waaye foofee ca Louga këru ka nga xam ne moom moo di Mamadou Lamine moom itam gis nañu kër way juróom bu jigéen ba ca anam ba nga xamante nii noonee la ñu ko taalee niki démb te dara indiwu ko lu dul lan maanaam daal kii di Ousmane Sonko ni nga xam ne noonee la ko bëgg a nee nañu kat maanaam d'accord ñu ci lu ni mel faaw nag daal di yëkkati li nga xam ne moom moo di immunité parlementaire moomu mel ni sax ginnaaw laas loolu la yéenekaay bi di le quotidien le quotidien daal di xëye ndax xëtam bu njëkk bu ñu ko xoolee bokk na ci li nga xam ne moom moo di ay jiyee ak yàq yi nga xam ne niki démb ñenn ñi feggu ci Ousmane Sonko def nañu ko fii ci Ndakaaru ba fa nga xam ne sax moom moo di tugal dafa mel ni ñoom itam euh, kenn demul ñu des ca na nga xamante ni noonee la ñu kat dañuy défendre ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko moo tax bi kat daal di fësal ci xëtam mu njëkk Pastef masse avec force mu mel ni daal ni mu taxawee dafa mel ni rek doy na waar tar na lool jëm ci li nga xam ne moom moo di askan bu Sénégal waaye yéenekaay ba yamu ca ma ngay fësal ni le virus de la violence répand dans Dakar waaye itam di fësal ni ay dégâts yu bare bari jëm ci matériel ak ñoo xamante ni am nañu ay gaañu gaañu nemmeeku nañu ko niki démb yéenekaay bi di Le Quotidien moo ko daal di fësal waaye tam di fësal ni itam noonu la ñu daal di tegee loxo ñu bëree bëri ci askan wi ndax rek la nga xam ne jot nañu ko daal di def ndax l'État agite le délit d'appel à l'insurrection waaye itam muy fësal yéenekaay bi ni kat li nga xam ne tey moo wër mbalaanu kiiraayu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ca anam ba nga xamante ni itam noonee daal la ñu ko war a mën a yëkkatee loolu la yéenekaay bi di Le Quotidien Le Quotidien daal di indi niki tey ci li nga xamante ni moom moo di xëtam bu njëkk niki noonu ñu daal di ànd ak le témoin le témoin moom ñëw ci xëtam bu njëkk indi infada à Dakar niki démb Dakar tàng na jër ñaka tàngal nag ñooy naataangooyu Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu gisee ni jox nañu ko convocation ngir mu war a urtali gi rek ca gendarmerie daal di addu ca la nga xamante ni moom Adji Sarr mën ko daal di gàll tuuma mu di rek ak yakatan nikat kat daf ko daal di violé mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoo di les jeunes patriotes ñoom nag def lu doy waar niki démb fi nga xam ne moom moo di dakaar ak yenn ci ay dëkk ki dëkkat ba sax fa nga xamante ni moom moo di tugal daal di taal li nga xam ne moom moo di ay oto ay magasin daal di koy yàqate ay station ak li nga xamante ni moom moo di ay bërëbu liggéeykaay yoo xamante ni dafa dugg ci cadre li nga xam ne moom moo di privé waaye tam niki démb ñoom itam defante gu doy waar gu ñu nemmeeku ci ñooñee ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yu Sénégal la yéenekaay bi loolu la daal di wax ba sax yenn bërëb yi nga xamante ni France ñoo ko daal di moom wala boog seen ay bërëbu liggéeykaay la ñoo ko daal di ëmb gis nañ ni ñoom itam euh, kenn demul ñu des ndax yëg caxat caxatee nañu lu baree bari ci li nga xamante ni moom moo di seen ay enseigne ba tey ci biir yéenekaay bi di la Témoin mooy quotidien ma ngay fësal ni kat li nga xam ne moom moo di convocation ba ca section de recherche ñoom avocat yu Ousmane Sonko ñoo ngi demandé rek ki nga xam ne moom moo di commandant bi ngir mu daal di conformer wu moo di la waa loolu la Témoin la de départ loolu la daal di wax yéen bi di l'observateur di def ak nettali ak nataal ya mu indi di ko fësal ca la nga xamante ni caxat-caxatee nañu ko niki démb ni indi ci xëtam bu njëkk récit d'une folle journée euh, d'infida euh, d'intifada ba nga xamante ni nemmeeku nañ ko niki démb maanaam daal dëkk bii di ndakaaru niki démb tàng na jërëse bokk na ca ñaka ñi nga xamante ni ñoo feggu ci Ousmane Sonko waaye ba tey ci biir yéenekaay bi mi ngi fësal ni kat dans l'intimité de la maison du leader du Pastef la section de recherche euh, boucle l'enquête mu mel ni rek ñoom itam bi de de maanaam tënk nañu li nga xam ne moom moo di enquête bi li lëkkale woon Adji Sarr ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko waaye itam ba tey yéene kaay bi ngi ni kat l'affaire entre la les mains du parquet waaye di fësal ni ñeent doomu aadama ak juróom niki démb jot nañu leen teg loxo euh, police moo leen daal di teg loxo ci anam bi nga xamante ni noonee la ñu doon defee ci biir réew mi di Sénégal waaye itam fii ci Ndakaaru rawatina ca gox boobu nga xamante ni moom moo di cité góor gi waaye yéen kaay ba yemu ca ginnaaw Ousmane Sonko def na ak euh, doxantu utali ji fa nga xam ne moom moo di banlieue bu Dakar daal di xooli ana kan mooy nag Adji Adji Sarr yéen kaay bi nee na kat l'autre visage de Adji Sarr la masseuse du leader de Pastef mu mel ni l'observateur ba mu fa demee taatal na fa yenn ci ay xibaar ci ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr waaye ba tey yéen kaay ba yemu ca ma ngay àddu bi yoon itam ci li nga xam ne moom moo di wopp ji di coronavirus ki nga xam ne moom moo di Croix-Rouge noonu nag dañu taxaw temb ni kat li nga xam ne moo doonoon xeex wopp ji di Covid 19 ci réew mi di Sénégal dafa mel ni kat état bu Sénégal dafa daal di exclure li nga xamante ni moom moo di waa Croix-Rouge loolu la l'observateur indi ni ki tey ci li nga xam ne. moom moo di xëtam bu njëkk ni ki noonu ñu daal di ànd ak Vox Populi Vox Populi fësal les Sonkolé loolu la daal di wax ña nga xamante ni ñoo feggu ci Ousmane Sonko ma nga leen duppe tey ci xëtam bu njëkk les Sonkolé sem chaos et violence ni ki démb ñu feggu ci Ousmane Sonko rajaxe nañ li nga xamante ni moom moo di Ndakaaru di taal yenn ci ay bërëb waaye itam daal di yàq yenn ci ay bërëb waaye itam daal di def lu waar ci li nga xamante ni moom moo di Ndakaaru loolu la yéenekaay bi daal di wax indi ko ci xëtam bu njëkk ni ki démb daal dëkk bi tàng na jër moom Vox vox populi loolu la daal di wax dans le triangle cité Gorgui Sacré-Cœur VDN ñetti gox yooyu ku ne xam na ne ni ki démb metti woon na tar na jëm ci taal gam doon taal waaye itam dem ak dikk mu mel ni jafe woon na lool ci li nga xamante ni moom moo di askan bu Sénégal la loolu la vox populi indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ni ki noonu ñu daal di ond ak su A su A ñëw ni kat grosse colère de l'opposition mu mel ni itam ñi nga xam ne ci woy kujje gi la ñu feggu ginnaaw Ousmane Sonko ñoom itam dañu gis ni dañu daal di mer ba fut saytu jëm ci les trois auteurs du fichier électoral présenté à la direction générale des élections par le euh, cabinet ERA loolu la yéenekaay bi daal di indi jëm itam ci wàllum élection ak li nga xam ne moom source à vandalisme de Sonko's boys loolu la daal di wax niki démb ñu feggu ci Ousmane Sonko ak nataal yi mu indi ci xëtam bu njëkk moom source a ma ngay fësal ni niki démb daal ñu feggu ci Ousmane Sonko di woote woo patriote euh, rajaxe nañu li nga xamante ni moom moo di Ndakaaru ay bërëb yu wuute ci ay taali oto ak i toju bus ak bërëbu liggéeykaay yoo xamante amaana dañu daal di feggu ci li nga xamante ni moom moo di privé bi loolu la yéenekaay bi daal di wax laataa muy fësal lii di këru Mahmoud Saleh foofu ca Sacré Cœur ak fa nga xamante ni foofu la waajur bu jigéen bu Mamadou Mamour Diallo dëkk ca Louga ñoom itam yooyu la bërëb dañu ko daal di rajaxe yéenekaay bi moo daal indi lu ni mel ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk moom suuf su a ci ay nettali ca na nga ñi feggu ci Ousmane Sonko wane nañ ko seen bopp niki démb fi nga xamante ni moom moo di Ndakaaru alerte sur la sécurité publique loolu critique moo ko daal di xaatim ndax gis na niki démb li xaw ci réew mi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di partisan wu Ousmane Sonko jot na nag ñu daal di xoolaat li nga xam ne moom moo di kaaraange jëm ci li nga xamante ni moom moo di réew mi di Sénégal loolu la yéenekaay bi daal di wax laata muy tab bi ca Assemblée nationale ak li nga xam ne moom la ñu duppee la levée de l'immunité parlementaire de Sonko en procédure d'urgence mu mel ni fi mu ne mi def fileek juróom-ñetti fan daal di yëkkati li nga xam ne moom moo di malaanu kiiraayu Ousmane Sonko ngir rek mu mën a jàkkaarloo ak li nga xamante ni moom moo di yoon ngir àddu ca la nga xam ne loolee la ñu koy daal di toppee mu mel ni lii quotidien ginnaaw critique yéenekaay dafa daal di ñëw nag fësal bërëb ba nga xam ne foofee la Ousmane Sonko duggoon mu mel ni coow lii ko topp yëpp lii moo ko ko daal di yóbbee yéenekaay bi ni kat accusatrice de Sonko la de Adji la yéenekaay bi daal di wax moom lii quotidien mu mel ni ni sax ma ngay wax ni ki nga xam ne moom moo di soxna Adji Sarr bi mu amee fukki at ak juróom benn ci la njëkkee def li nga xamante ni moom moo di scandale à 16 ans et il signe son premier scandale bi muy am fukki at ak juróom-benn la ñu njëkk a nemmeeku ci moom ay coow yu ni mel waaye itam di fësal ni comment elle a foulé son ex fiancé maanaam daal ginnaaw fukki at ak juróom-benn bi mu ko amee def la mu def mu mel ni wanewaat na yéenekaay bi na nga xamante ni foofee la mujjee ak ki nga xam ne moom la mujj àndal lool la yéenekaay bi daal di indi niki tey ci xëtam bu njëkk laata muy tàbbi ca na nga xamante ni itam ñi feggu ca Ousmane Sonko defee nañ ko niki démb ci Ndakaaru Njaay daal di caxat caxatee lu baree bari ci ay bërëb fi nga xamante ni moom moo di Dakar ak biti réew ak yenn ci ay dëkk ki dëkkaat fi nga xamante ni moom moo di Sénégal Sonko et la masseuse ou suite beauté gate loolu direct news moo ko daal di xaatim ci xëtam bu njëkk daal di koy toftal la ak nataalu la nga xam ne moom moo di bërëb boobu nga xamante ni fa la duggoon ba coow lu ni mel daal di koy topp mu mel ni sax ñuy gis ni la ñu koy toppee bokk na li nga xamante ni moom moo di coowal yàkkataan de Sonko loolu yéenekaay bi daal di wax ci xëtam bu njëkk mu mel ni rek yéenekaay bi nee kat fi mu nii dafa mel ni am nañu jàpp ni mbir mi dañu ko daal di jël rek lal ko ci li nga xamante ni moom moo di coowal politique ginnaaw li nga xam ne noonee la direct news daal di gisee ni ki tey li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ni ki noonu ñu daal di ànd ak soleil national moom nag ci la mu tàbbi soxal la coowal Ousmane Sonko mooy rek dem ca fa nga xam ne moom moo di péncam ndaw réew ma ca levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko ana nees mën a def ngir lal li rek li nga xam ne moom moo di malaanu kiiraayam ngir rek mu mën a jàkkaarloog li nga xam ne moom moo di àttekat yi ndax sax nee nañu eh, ginnaaw bi ñu déclenché lu ni mel fii juróom-ñetti fan rek moo ci gën a néew ngir rek ñu daal di xool ba xam kat en cas d' acceptation de la requête par le bureau de l' assemblée nationale ñu daal di ak réew mi quotidien moom dafa daal di ñëw tey sampap laaj Sonko va-t-il maanaam daal Ousmane Sonko dina ragg boppam ba mu set naam wala déet laaj boobu moo daal di samp ci ginnaaw bi ñu ko gàllee ci ndoddam tuumaal ni kat dafa daal di yakkataana benn xale bu jigéen waaye niki noonu itam yéenekaay ba yamu ca nee na les partisans de Sonko mettent de feu à Dakar des jeunes arrêtés des véhicules caillassés ba pare daal di wax ni kat li nga xamante ni moom moo di ay bërëb yenn ci ay enseignes yoo xamante ni wala boog ca buntu Prodac oto ba nga xamante ni jot nañu ko fa daal di taal waaye kii di Assane Diouf ak yenn ci ay ndaw ñu gis ni jot nañu am ay gaañu gaañu waaye kuréel bii di FRAPP ak Y'en taxaw Sénégal ñoom itam ñëwoon nañu rek ngir xool ana nees mën a wattoo wala boo gungee ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ci coow li nga xamante ni moo ko daal di topp waaye réew mi quotidien yamu ca bi yoon nag dugg na ci biir askan wi daal di àddu ci loolu nga xam ne moom la ñuy wax classe sociale le mariage des jeunes face à l'épreuve des castes loolu la indi ci xëtam bu njëkk moom itam réew mi quotidien ci jafe bi nga xam ne yenn ci askan wi wala bokk ndaw ñi ñu ngi koy faxataal di am ngir rek mën a euh, dugg ci néegu sëy ndax ci coowal li nga xamante ni moom moo di coowal caste ñu daal di ànd bi yoon ak Walf Quotidien Walf Quotidien ñëw ni Dakar tout feu tout flamme ni ki démb daal fii ci Ndakaaru mbir mi daal doy na waar tax na jëppet ci yenn ci ay bërëb yenn ci ay kër ay commerce ak li nga xam ne moom moo di ay oto ñu daal di leen di taal jëppet yéenekaay bi sax indi na yenn ci ay nataal ci bërëb yooyu nga xamante ni jot nañu ko taal récit d'une journée mouvementée cité kër góor gi transformé à brasier vers euh, vers une démocratie sans opposant loolu yéenekaay bi daal di wax ba xam dañuy dem ci maanaam euh, démocratie boo xamante ni doon am li nga xam ne moom moo di woy kujje waaye di fësal ni kat lii di Total Auchan Orange les symboles de la France saccagés mu mel ni ni ki démb ba ni wane seen bopp ñoom itam ay partisans yu Ousmane Sonko yemuñu ca lépp lu ñu gis te mu feggu ci France nekk fii ci Sénégal moo xam Total Auchan wala Orange moom daal lépp luy enseigne rek caxat caxatee nañu ko yàq nañu ko ba mu yàq yaxeeta loolu la yéenekaay bii niki tey ci li nga xamante nii moom moo di xëtam bu njëkk niki noonu ñu daal di ànd ak libération moom ci leneen la daal di àddu wax ci effondrement d'un immeuble de en construction à Xodaba a Xodaba la daal di wax mu mel ni foofee nag immeuble boobu nga xamante ni bi mu daanoo dañu gis ni kat ndeke lanu ko tabax tabax ndeke amul woon li nga xam ne moom moo di autorisation de construire loolu la yéenekaay bi daal di wax ni kat l'autorisation de construire introuvable ni kat ki nga xam ne moom moo di entrepreneur bi ndeke yorul daray këyit ci dogal ba nga xam amoon na ko ngir rek di tabax foofee nga xamante ni ba mu tabaxee dañu gis ni immeuble ba dafa daal di daanu di fësal ni kat le patron de 3MD énergie entendu devant avant de rentrer tranquillement chez lui juróomi doomu aadama jot a ñàkk seen bakkan ci effondrement boobu toujours pas de coupable malgré la gravité des faits mu mel ni loolee nga xam ne xew na nekk lu doy waar ba nga ni gisagunu benn njeexintal wala ak acte goo xamante ni nemmeeku nañu ko ci loolu la daal di wax laata muy àddu ci série de manifestations au Sénégal et à l'étranger hier Pastef engage la résistance loolu la gisee moom libération ni ki démb daal dafa mel ne lii di xeex ak defante moom la kuréelu Pastef daal di engagé fi nga xamante ni moom moo di réew mii di Sénégal la ni ki noonu ñu daal di ànd ak Dakar Times moom ba tey ci biir yéene kaayam ma ngay indi ci xëtam bu njëkk nataalu ki nga xamante ni nag moom moo di Emmanuel Macron mu di njiital bu France conseil présidentiel pour l'Afrique loolu la ñu amaloon moom kat di jël benn message daal di koy lancer li nga xam ne moom moo di les entreprises entrepreneurs africains le message de Macron aux entrepreneurs african waaye tam mu mel ni boobee ñu doon amal ab la ci lu ni mel xool nees mën a def ba nga xam ne entrepreneuriat dina mën a suqali li nga xam ne moom moo di Afrique gis nañ ni Sénégal amoon na ca wàll bu yaatoo yaatu waaye tam indi woon ci taxaw seetlu bu am solo waaye yemu ca Dakar Times ma ngay ñëw ci appel au soulèvement euh, Sonko euh, résiste et s'expose ni ki démb loolu la yéenekaay bi daal di indi euh, tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk furie et destruction loolu enquête moo ko daal di wax ba tey ca nañu ko gisee ni ki démb ñi nga xam ne ñoo nekk ay ñooñu Ousmane Sonko génn ci biti wane seen bopp ginnaaw bi ñu gisee ni Ousmane Sonko ba mu defee euh, conférence de presse am la ñu xëy daal di suba gis ay naataangoom dem ca buntu këram daal di fay nekk ba ñu fa nekkee nag mu mel ni bokk na ca la ñu doon tere mu di ay rassemblement ca la takk der yi demee foofu ngir xool nees mën a def ngir tas li nga xam ne moom moo di rassemblement bu ni mel ca tas gañ ko doon tas nag moo indi jéyee bu ni mel mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di jege ñaale yi Ousmane Sonko gëm ba futt ba lu ñu gis tocc ba lu ñu gis daal di yàq mu mel ni loolu moo jur démb ay manifestation fi nga xamante ni moom moo di Sénégal l'enquête bouclée le dossier envoyé au procureur aujourd'hui jëm ci coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko mu mel ni boobile enquête tëj nañu ko waaye itam jébbal nañu ko ki nga xam ne moom moo di procureur niki tey lañ ko koy daal di jox waaye fi mu ne nii ci yéenekaay bi di Les Échos na ma ko waxee mooy ni kat amagul benn arrestation aucun déferment loolu la daal di wax waaye assemblée itam ma nga taxaw téeméeri xool nees mën a def ngir rek daal di yëkkati li nga xamante ni moom moo di mbalaanu kiiraayu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ngir rek mu daal di dem jàkkaarloo ak yoon ngir daal di at bu ci fee yooyu nga xamante ni ñi ngi ko koy toppe fi nga xamante ni moom moo di Sénégal mu di coowal yakkataan maanaam daal daal di violé li nga xam ne moom moo di benn xale bu jigéen na waaye yéenekaay ba yabu ca ma ngay àddukat venu en bouclier de leur leader les pro-Sonko enflamme Sacré-Cœur et les enseignes françaises mu mel ni rek ni ki démb taal nañu jëppet fa nga xam ne moom moo di Sacré-Cœur waaye lépp la doonoon ay enseigne jëm ci këru liggéeykaay yi ca France fii ci Sénégal dañ ko daal di taal jëppet moo xam Auchan moo xam Total moo xam itam li nga xamante ni moom moo di Orange yéenekaay bi loolu la daal di wax waaye affrontement bu tar ta metti ni ki démb nemmeeku nañ ko diggante pro-Sonko yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der bare bari jot ci am ay gaañu gaañu waaye lu ëpp ñeent fukki nit euh, wala boog ñeent fukki doomu aadama yu fegg woon ci Ousmane Sonko jot nañu leen daal di teg loxo ci anam ba nga xamante ni noonee la ñu doon defee di ko wanee seen bopp ci réew mi nga xamante ni moom moo di Sénégal la niki noonu rek dañu koy daal di daanele ci suñu biir la revue des titres ak yéenekaay bi nga xam ne moom moo di l'évidence l'évidence ñëw ba tey ci coowal Ousmane Sonko ni kat la mise à mort d'un opposant loolu laaj bu samp la ba xam dañu daal di faat ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko sur le plan politique ndax taxaw taxawaay bi mu amoon ci li nga xamante ni moom moo di way kuje gi loolu la yéenekaay bi daal di wax laataa muy fësal niki démb la nga xam ne xew na ca cité góor gi ca anam ba nga xamante ni noonee la ñu fa taxawee xalifa Khalifa Sall et mi Diaz euh, ñoom itam gis nañ ni dem nañu gis ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko loolu l'évidence moo ko daal di indi niki tey euh, ci li nga xamante ni moom moo di xëtam bu njëkk di wax itam zoom sur Adji Raby Sarr Adji Raby Sarr triste célèbre tristement célèbre loolu la yéenekaay bi daal di wax indi nataalam maanaam daal siiw na siiw bu doy waar siiw goo xamante ni siiw bu ñaaw la rafetut loolu la yéenekaay bi daal di wax laataa muy fësal ni le domicile de Mamadou Mamou Diallo incendié ni ki démb këram foofu ci Louga fa woy juróom bu jigéen ba nekk gis na ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di les pro Sonko dem nañu ko daal di koy taal mu mel ni image gis nañu ko ci ni nga xamante ni noonu la ñu ko gisee ci internet bi gisee ko ci nañu ko tasee mu nekk loo xamante ni lu doy waar la yéenekaay yi loolu la ñu daal di indi ni ki tey li tënkuwoon ci li nga xam ne moom moo di suñu pàcc bi njëkk ci